TV mooy suñu télé. la ko. ñu ngi leen nuyu di leen ziar fi fu mu mën nekk di seetaan chaîne bi nga xamante ne moo di la chaîne de la vérité di Reubeuss TV tey nag ñu nekk fi nga xamante ne moo di Reubeuss Rijal Diop angle Ambroise Mendy côté police Reubeuss li fi xew nag mooy conférence conférence yi beneen anam. mooy lan conférence guddi bi laytul xadr ndax ñëpp xam ne nañ laytul xadr mu ngi nekk ci fukki guddi yu mujj yi ci weeru koor jamono yi nag ñu nekk si nag ndax mu ñu ngi fukki guddi yu mujj yi rawatina tey di di samedi kon ñu ñëw fi nag ngir benn conférence boo xam ne dañ ko jagleel laylatul xadr ci ki nga xamante moo di Adama Mbengue organisé ko ci ndigalu yaayam waaye juróom bu jigéen bi moo ne seen première édition ñu koy def nag kon dañuy dugg ci biir nag xool naka la bés bi di demee tey incha allah rabbi ak yéen kilifa ñoo fi jot a teew incha allah كنا قبلنا خبرنا أجمعين خيرا منه إن ربنا يأمرنا كيف يتواجر الأرض لو كانوا يرون إن المتقين عند ربي جنات النعيم للمسلمين كالمجرمين مرضوا كبتكم وسالهم وهم ذكر وكانوا يرون كلمة النملة فلنوم إلى ليلة الخدري مكة bon bu ah conseil bi daal mooy. waaw ñoo ko organisé xam nga ñëpp a ñëw seen bu rafet toog. xam nga waaw ñu passé vraiment dans le jàmm daal. yal na yàlla may fi yal na yàlla may ñu fekkee déwén incha allah. waaw yàlla may ñu gën fekkee ay déwén déwén di ko yàgg ñu koy fekkee waaw. jërëjëf jërëjëf. ñu gis tey ngeen woo fii tey doomu aadama def laylatul xadr. waaw organise benn laylatul xadr lan moo waral lii nii tey. maa ko organisé parce que bugg naa yàlla bugg naa yonanti bi ba si tey képp looy def rek yàlla moo lay fay ma génn saraxa sama njabootu pour sama réew bi réew Sénégal parce que fii laa nekk fii laa xam sama doom yi fii la ñu juddu fii la ñu màgg xamuñu fenn fii la ñu xam donc li ma def rek ngir yàlla ak yonant bi ak dëkk bi yàlla ñu am jàmm ak salaam si dëkk bi loolu rek la du dara. ñu gis ñu gis wootee tey doomu aadama yi wuy sa nañ la. ñi nga xam ne ñoom ñoo wuy sa nga leen wax tey. nañuy jàpp diina l'islam rek nañu am xool bu muñ parce boo bu sax bu amul xol yërmande dara du baax loolu. ñu gis bi mooy bu njëkk ñuy def lu mel ni fii. waaw ndax incha allah am nga yéene continuer ko weer bu koor bu jot nga taxawoo ak incha allah. ne bii mooy bu njëkk nga koy def fii nii. ndax am nga yéene weeru koor bu jot rek nga defaat ko incha allah. man de yàgg naa def lii. du tey rek yàgg naa def lii bu yàlla may ma gudd fànn ak wéet yaram dinaa def beleen incha allah waaw amiin amiin amiin lan ngay wax waa Rebeuss tam yàlla ngeen am gudd fànn liggéey bi ngeen am ni yàlla ngeen am barka ak sutura

alhamdulilahi rabbil yàlla bu la dimbalee defal la doomu aadama defal la ngay jullit ngay sant yàlla fekkoo sa waajur muy muy tëg fekkoo muy fecc fekkoo muy naan sangara nga war a sant yàlla lu bari waaw képp doomu adama boo xam ne même jàngoo boo amee xel nga xam ne diine bi du di neen Eh, ngay sant yàlla lu bari wallaahi man gis naa kiimaan yu bari si si diina bi xale xale la duma ma xale encore encore yu noonu alhamdulilah rabbil yàlla may na ma dem ba dem na ba aj yi kon li ma gis kenn mëntuma nax si si diina bi kon diina bi fu ñu woote man allah jal seen sila dinaa fi teew waaw ah, lii may waxee si waa télé yi alhamdulilahi rabil alamina eh, yàlla def barke si si bi yàlla def barke si télé bi parce que ma société bi comme yéen taxawaay bu bu ngeen am taxawaay boobu kenn mënu leen fay bu ngeen ko defee ni ngeen ko war a defee dañ leen ñaan yàlla yàlla yubal leen yàlla jubante leen ngeen def ko siraatul mustaqiim eh, tey boo seddee am na yu bëri yoo xam ne jànguñu mais télé yii ñoo leen di may ñu xam seen diine waaw waaw yi moo leen ñu may ñu am xam-xam bëri télé yi dinañu jouer boo xam ne dina dimbali yu bëri ñu moytu yu bëri kon kuy jullit moom bu fuñ koy def nga fekkee ko nga cee teew rawatina fii suñuy mbokk ñoo fi nekk ñi invité yi ñoo fekkee ko loolu moo ci war suñu teewaay tey du ko rafetlu bu baax nag di ñaan yàlla fekkee ko ay déwén yu bëree bëre yàlla may ñu gudd fan may ñu wër gu yaram may ñu tal ak fekkee waaw ñuy nekk fi tamit yàlla dëgër dëgër seen taxawaay waaw loolu moom loolu daal mooy sunu suñuy kàddu mu gën a góor ko def ko parce que même ñun ñii nga gis euh, dimanche bi passé danoo def conférence bu mag sunu koñ def ko ay jàng ñun sunu ñii sunuy groupe nii ñu def ko ñii ñooñu demoon jàngal diine bi moom amul xale amul mag doomu aadama xarama moom war nga cee jàpp baax a baax a baax a baax su boo ko mun même boo ko munu nga jéem ko parce que moom mooy su mooy mooy juutu te moom mooy mujjee tamit ko ñu góorgóorlu ci bu baax a baax wala ñu lay yóbbu ci yàlla yow nga demal sa bopp ci yàlla moo gën kay ah waa wax dëgg ñoom tamit seen yal na yàlla dëgëral seen taxawaay daal parce que lu ngeen def nii tam lu baax la nit buy def dara su dem ci diine nga ñëw fekkee ko euh, firme ko ni gën koo suul yéen tamit yàlla dëgëral seen taxawaay ci karam ci kaw ci lu baax rek nga yàgg koo def rajo bu fekkee rajo la yàlla na nekk dem ba am télé loolu laa leen di ñaan yéen xale yi di ci nekk tamit. yàlla dëgëral seen taxawaay may leen gudd far may leen yaram waaw ba ngay yàgg di ko def tamit. di nuyu ñi nga xam ne ñoo déglu ak ñu ñuy xool seetaan ci seen chaîne bi Reubeuss TV sunu tànk tey lu dul tànku mbokk tànku jàmm di tànku jullit ak jullit parce que sunu relation ak Guinée dafa basé wu ci histoire basé ci sang. passé wu tamit ci diine te boo gisee la population guinéenne bi fi nekk réew boo fi toogee vingt ans trente ans fi ay doom doom yooyu jur fi ay doom donc yow si foofu nga bokk en tout looloo tax ñu ñëw a jàmm salaam di ko bokk ñoom si si bàq sey salaam به li ma koy jox si conseil dafa doon lu gàtt teem solo mooy lépp lu doomu aadama di dox si luy boole ay doomu aadama la lépp lu doomu aadama di di dox luy yokk diine di ko gën dëgëral. donc dañuy wax rek alhamdulilah rabbil alamin di ñaan soxna si def ko ren yàlla na fi yàlla bàyyi mu koy def ay ati at te ñun ñii tam ñoo teewee ko yàlla yàlla may ñu koy ay ati at ñu fi toog yëpp yàlla bu fi gën a parce que moom àdduna legi toll na foo xam ne diine kese mu la mën a basé wu si la mëna mën ko sukkandiku pour mën a moytu lu bare en tout cas soxna si ñoo koy ñaanal. di ko ñaanal lii ni mu ko defee tey yàlla na ko defee ay ati ati at si barke Seydina moom si barke màggaayu guddi gi. ah yéen moom euh, ni ma ko doon waxee rek comme bi ngeen ñëwee bi ma yàlla defee à la tête de de la piscine olympique ngeen doon ay xale yu yu ndaw franchement ma gis leen ngeen def seen liggéey mu sell. vraiment li ma leen waxoon laa leen di waxaat fi ngeen fi ngeen foofu la continuer leen ko gëm ko parce que àdduna lépp dara tëbul sotti il faut il faut il pas être pressé ngeen di évoluer étape par étape mais ngeen teg seen liggéey si ñaari fànn professionnel professionnalisme rigueur ñaar ñaar yooyu bu leen ko jàppee incha allah li ñëpp gis di dem kanam li ma leen waxoon nag di waxaat lu ma mun rek si Reubeuss TV naa ko def parce que Reubeuss TV c'est dans la commune du Plateau voilà dans la commune du Plateau. waaw ci ñom mbégte bu wér wér may ñaan yalla yalla bay leen fi ñom ñëpp yalla may ñu fan bu gudd ñu koy féké tal ko tante bi nek tante bu reuy bir corona ñu sant suñu borom bu wér quoi waaw tey jii yàlla def ngeen wote ñu wuyu ci le ndax wote ñu wuyu si leen mhm. yombul. waaw lan ngay wax ñi nga xamne ñoo leen tay suñu ci waaw di leen sant rek. tey jii dafa melni ñun ñepp wote parce que sa ñu ne guddi yonent bi alayhi wasallam mu toll ni laylatul xadr yi. mu wor ne ben guddi la ci la alxuraan wacc ci di dernier jour yi. do leen sant suñu borom. manam ñun ñepp organiser senegal bi yëpp. jul képp kuy julit yëpp ñi ngi ci bir dal massa n'a ñi teew ñu leen wax mention spéciale dal. waaw dans les bu wér quoi waaw allahuma amin amin et puis Reverse TV ñuy gën di bëggee ci ñoom ñuy xool seen liggéey rafet na set na ñu ci manifestation bu cérémonie yëpp ñi ngi ci waaw vraiment yàlla na yàlla gën a yaatal mu nekk Ngandam tele waaw yàlla mën na ko te dina ko def si kattanu borom bi waaw kontaan nañ trop may nuyu de passage Fara le directeur yàlla li mu namm namm ko ci rajo bi ak ñi kaw ngeen bokk ko yéen yëpp yàlla na suñu borom yaatal rajo bi ba mu nekk ay télé télé télé télé te yàlla mën na ko incha allah si kàttanu borom ak guddeem bi maa ko ñaan incha allah loolu dina am si kàttanu borom kontaan nañ trop quoi. maa ngi fay. ñu gis ne tey ngeen organisé fi benn guddi laylatul xadr mu nekk euh, loo xamante ni gis nañ ni wax nañ yàgg ngeen ko def te gis nañ ni maire bi yàgg na def situation yu mel nii te ban contentement nga am lan nga yëg si soxol ci bés bi tey ah sant yàlla rek ci guddi Seydina Mouhamed bi sallallahu alayhi wa sallam kontaan rek nga woote rek nit ñi wuy si la rek dafa neex ci xool rawatina guddi gu tedd gi kon dañuy ñaan yalla di ñaanal suñu yaay mu am guddu fan ak wergu yaram yag fi lolu bañu koy def chaque année lolu lañ koy ñaanal légui nga xam tane yeen da ngeen wote ñu wuy ci len ndax jamono yi nga woo nit mu wuy ci la yombul mhm. lan nga eh, fekk ak ñoom jàmm ak salam rek ndax dëkkandoo jamm mbokk jamm te dama yara kalabaas bo xamantene mo waral mbolo mi tay ji ñii nga gis ñu sol nuróole yëpp samay mbootaay lañu looloo waral wuy si gu rëy gi yëpp. bi ngeen commencé ak léegi lan ak lan ngeen mos a organiser fii lu man macha allah sant yàlla lépp lu ma woote rek daañu ma wuy si waaw loolu moom yàlla may na ma ko. ñu gis ne carrément tey rëbës macha allah lu mel ni gën na fi am ak daaw période bi nga xam ne moom lañ tolloon ci feebar bi lu bëri yàqu woon ak tey feebar bi nga xam ne am na ak mesure de prévention xam ne ñu ngi koy jël ci feebar bi ban conseil tey ngay joxe doomu aadama yi ñu bàyyi gën a bàyyi xel ci feebar xam ne ba tey feebar baa ngi fi. a distance bi waaw loolu dana tax ñu respecté mesure barrière yi ba nga xamante ne raxasowuñu lu bari waaw feebar bi ñu ngi koy moytu baax a baax parce que corona demagul de mais nag sant yàlla rek daal lan ngay wax waa Rebeuss TV Reubeuss TV dama kontaan ci ñoom ndax lii dañu war a jàppare Fara ndax yombul day metti de mais ca kanam la jëm ndax Reubeuss TV Reubeuss la fi nekkal nekkal fi ñëpp nag du Reubeuss kese sax ñëpp la fi nekkal jàpp na am na itte te dañ koy ñaanal yàlla avancement moo xam fi mu bëgg a jëm yal na ko fa yàlla yeggal ci barke alxuraan di leen ñaanal yéen ñëpp tamit képp ku fay liggéey rek yal na la yàlla saxal barkel la yokkal la sa liggéey آمين الله سواد أبيك آمين الله على جنوبنا آمين الله ومن علينا بستر عيوبنا آمين الله اللهم إياك رضاك آمين يا لنا وسخط بك آمين جهورنا وأجدادنا آمين ربنا من الجوع والخوف آمين بلادنا وسائر بلاد المسلمين آمين يا رب العالمين آمين مبلغ سواد آمين ما خلقناه ونورا آمين يا ربي ما جرناه إلى روحي آمين الله سيدنا ونبينا آمين الله حبيبنا محمد آمين الله عليه الصلاة والسلام آمين الله ولأرواح آبائه آمين الله وأمهاته آمين الله وأزواجه آمين الله وأبيه آمين الله وأصحابه آمين الله رضوان الله تعالى عليه آمين الله أجمعين آمين الله وإلى أرواح آبائه غنائنا آمين الله وأمهاتنا آمين الله ومساقنا آمين الله ولأرواح جميع المسلمين آمين الله والصلاة والسلام على سيدنا آمين الله المرسلين آمين الله سبحان ربك رب العزة آمين الله عما يصفون آمين الله وسلام على المرسلين آمين والحمد لله رب العالمين والحمد لله Rubus تي في suñu télé. La chaîne de कसं रेल